Singbas Bass dañ lay laaj manam daara ji nan lay doxé ak ndaka lay doxé ba xam ñom ñi ngi gor gor lu bu baax ak wa dekk bi daara ji nag bëgg nañoo xam kañ nga fi nekk ak biñ fi nekké ba légui ban jafé jafé nga fi am ak ban bànneex nga fi am lol tamit dinañ la ko laaj wa nga tontu nañ ci rek bismillah seigne Bass salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw mbokk yëpp ziyaare ñëpp di am mbégte lool ci bis bi parce que yéene ànd ak mbooleem mbokki dëkkandoo yi ak mbokki taalibe yëpp. bis bi nag bisub alquran la woote. muy bis boo xam ni sunu borom bokk na ci li ko gënal. mboolem bépp woote nag woote bi benn woote gënu ko kon ñu fas ko yéene ànd ak mbokk yëpp. moom jëmm ji laaj ma it laaj bu am solo ci taxawaayum jàng mi ak naka la daara ji moom jàngale ak yar rek moo fi am na jàngal xale bi ak yar xale bi ndax jàngum kese mu àndut ak ab yar du jariñ dara ndax loolu suñ ko tedd ko muy sëñ Tuubaa mi ñu koy jàngal ci ay téere yu bari kon dañuy jàngale ak di boole ak yar yenn saa yi nag mu xaw a am jafe-jafe mu neex yenn saa yi mu xaw a euh, naqari waaye lum ci mën a doon ñu di ko muñ ndax yàlla ni inna laa ma saabiriin yi nga xamante ni parents d'élèves la muy seen taxawaay fii ci daara ji ñu ngi leen di sant bu baax a baax di gërëm ñëpp même yaay noonu it ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp li nga xamante ni am na ci suñ diggante ak ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak li ñuy dund moom mooy dañ leen di ñaaxaar rek ñu gën a fonkaat daara ji gën a jàppaat ci daara ji ndax am na ci yoo xam ni mënta ñàkk di manqué waaye nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax taxawaay it ci soññi doom yi ñuy jàng bu baax a baax lu am solo la ndax loolu day jàppale man sëriñ di fi nekk di leen jàppale ñoom xale yi te xale bu tolloo ci jàng deful lu gën jàng na jàng rek te it bu yàkkamti bu mu xëcc dara na yem ci jàng rek te xam ne wallaay lépp dina ñëw bu ko defee ñoom waajur yi ñu gën cee góorgóorlu bu baax gën cee jàpp bu baax a baax dana nekk loo xam ne si lu may jàppale la luy jàppale dëkk bi la luy jàppale yi doomi dëkk bi la loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax maa ngi ciy woo ñëpp di ci sàkku euh, ñëpp daal fekk si ma ci loolu yi ma bëgg parce que yéene ànd ak man jërëjëf wa sin Basiru waxtaan yu amna solo lol ma sha allah yow na la fi yalla yagal nga yag and ak gone yi yag leena jangal yag leena yar ba li nga bëgg ci ñom lepp sa borom defal lako ci barke seigne touba kon wa dekk bi deg ngeen waxtaan mi ngi kon nañ gëna bayyi xel daara ji gën ko fonk ndax daara ji boy xol lu bari fi te war na fe am kon nañ ci jàppale bu baax baax ñi ci wo ñepp ci daara ji ku nu ci mën a jàppale rek ñu ngi la ciy woo ndax lu bëree bari war na fee am te amu fi waa lu mel ni ay toilette ak lépp yitte woon nañ ko fii ci daara ji te amagu fi kon mbokk mboolem dëkk bi kuy dégg suñ kàddu rek nag ñu ci ku déglu kii annonce bii rek hmm. nga bàyyi ci xel bu baax a baax te jàppale ñu ci daara ji annonce bi nag boo duggee youtube boo bindee Lambaye TV hmm. di nga ko gis hmm. nga nga sàkku diglu ko bu baax rek ñu gën a jàpp ci daara ji gone yi moom wax dëgg yàlla macha allah jagam ki leen di jàngal moom nee na li soxla daal nañ ko jàppale ci xale yi ñu jàng si bu baax a baax te loolu mooy dëgg nañ gën a yaraat xale yi te di leen wax ñu jàng si ci daara ji am na ci solo lool ndax dëgg yàlla moom mi kat am njàngale dong ko fi ndi ndax su bëggee toog moom kase te amul kenn saa bu xëyee ña ci mbaar mi ñaar ñëw wala ñett loolu baaxut waa na ci ñëpp jàpp xale yi nañ ñëw jàng ndax fi mu ne nii alxuraan rek mooy dëgg te moo wóor kon nan jàppale suñ bas mi bu baax a baax ci daara ji wax dëgg yàlla de li nga nii moom am na solo lool kon nag waa dëkk bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal ñu gën a fonkaat daara ji rek ci barke Sëñ Tuubaa waaw Lambaye TV ñu ngi lay siyaare bu baax yow it di la ñaanal bu baax bu baax a baax émission bi am na solo lool bi ñu la ko waxee jàpp nga ci bu baax a baax kon ñu ngi lay ñaanal ci sëñ Touba yàlla na télé bi yaatu yaatu fépp ci barke sëñ Touba jërëjëf di ñaan télé bi yaatu boo ko cee ya gën a sori kaw ci kàttan yàlla ak mbaaxam mën na ko nag te ko suñu borom def am nañ mbégte ci yéen ndax seen taxawaay rafet na lool ñu ngi sant ñëpp kon jërëjëf te jogal